asalaamaaleykum sunu mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel sbt média point com amaan nañu mbégte tey ñëw fii nii Ngor ah seet fi benn xale boo xam si ne nii ah cool yi bëri na waaye cool yi yëpp mbapat rek la toj waaw mbapat gi sax am na gaa yoo xam ne nee nañ sax taxu koo toj bu baax noonu ah ci ci ci booy yi nga xam si ne dañuy ndellu rek xaw ma li <laughs> li naan booy eh, sa micro bee saf suukar moo tax ñu nekk di wax tey ñu seet si ki nga xam si moom mooy Lirou Diane bu Ngor ah nekk xale bokk si làmb fi mu dëkk ah nekk mbër boo xam si nii xale la mais fi mu dëkk bàyyi nañ ko xel bu baax a baax a baax tey SBT moom la seeti wax naa ne jërëjëf borom Touba jaaraamaam Cheikh Ibrahima Fall ginnaaw ma sant yàlla ne julli si yonante maa sant suma ñaari waajur di leen nuyu di nuyu waa Ngor yëpp Ngor yëpp di nuyu suma gaay euh, kan mooy liiru ak liiru moo ko boole ak lam ak turu liiru fan la jógee waaw liiru moom mooy loolu wara dañu wàcc mbapat nii di bëre ma àndaa suma gaay quoi di bëre mbapat nii boobu tudd sax liir ñu mooy woo beneen tur quoi ñu wàcc mboppa ji di bëri ne ma wàcc rek sama benn boy ne ma eh instant bi liiru jaan ngay tudd quoi sama benn xarit bu ñaan papay ma ma tuddee liiru jaan quoi mu ne ma instant bi nii liiru jaan bi ngay jël quoi ma ne ko waaye yee liiru bu ñu ko tuddee ba tey jigi diwuñu quoi parce bu ñu ko tuddee ñu ngi si bëri ay mbapat ñu si bëri fu ñu dem gars yi dinañu si ràññee te fu ñu ñëw bu ñu liiroo ñu ñor gars yi bàyyi xel quoi tur bi jigéen diwuñu mhm. doon wax làmb la moo la boole làmb da am maam da nga ko doon bëri bi wala lan la non non sax doondu ñu bëre mais xam nga tey ngor gi boo fi nekkee. dëkk bi ñu nekk dëkku lébu la quoi noonu lañ ko mën a waxee quoi dañ ñëw fekk fi suñuy papa ay njool ngor ay boy bool ñoom lañ fekk fii quoi ñuy bëre ñu yàgg leen demal stand di leen seetaan quoi di seetaan seen i combat affaire yooyu noonu say mais nag affaire neex ñu quoi ñoom bu ñu bëri ci arène ñun dañuy dem seetaan i stade boobu loolu rek lañ si amoon quoi mais dem topp suñu ginnaaw frère ku si mel ni xeeru ngor numéro ñu topp seen ginnaaw bu ñu mbafa di ñuy ànd ak ñoom di dem toujours pare di ma wàccee may toog si cumukaayam xam rek loolu tamit dem ba neex ma quoi léegi ñoom bu ñu entraîné ji may topp seen ginnaaw quoi di dem géej bu ma demee teewul leen ngemb yeex ndox yeex yooyu quoi après di bërintuwaale si tafes affaire dem ba dugg ma nag loolu nag moo dugal si làmb quoi di leen nuyu nag ku si mel ne toujours pare ak Xeeru Ngor numéro 2 waaw profité ñu di leen nuyu ñuy ay champion yoo xam lamb di bàyyi xel muy toujours pare mais nee naa ko toujours pare yow man ak yow sama diggante yow sax pare ndax fu ma la fekk rek defal la affaire mi ngi noonu ah, di nuyu xeer ngor numéro 2 moom it di champion lamb bàyyi ko xel muy mbër boo xam si ni macha allah mbëru gox la di ko ziar baax di nuyu waa ngor yëpp ah, di nuyu champion yi nekk ngor yëpp ak képp koo xam si ni ah yaa ngi bégg ngor ak foo mën Ah, à travers SBT Média wax naa leen ne diaspora bi yéen ñëpp maa ngi leen di siyaar bu baax a baax di nuyu nag waa VIP lamb ji bu baax a baax ah, ñoom ah, ñëpp rek ñoom Mbaye Babacar ñoom Moussa Niakh tey noonu laa koy nuyoo ak Ibrahima Sadi ah waaw di leen jox seen wàccuwaay bu baax mais xeeru euh, nu mu tuddee liiru jaan ñi day màtt wala màttul. dangar jaay nii danaa laa cofet bàyyi la dangar gi nga dem bi laa cofet muy gaaw ragaluñu loolu de liiru jaan bu ngor ngay waxal de. ñaar combat ba nga def. non bëri na bëri bu nga ñu ko tudd parce que instant bi bi ñuy gën a nekk xale dañuy gën a yëngu si wàllu mbapat quoi ñu dem yoof benn tournoi mbapat ma doon lu ndaw bi ñëwee duñ dugg see dañ ne ma noono yow matoo bëre quoi matoo mbër booy fi doo fi ma ñu leen damay bëre ñi ma àndaloon kaas gars yi ma noono duñ la dugal mais gars yi ñu dugalee billaay làmb jooju yoof dama kaa toj mbapat moom ma jaayante dem ba demi final ma génn fekk fa sama grand yi moo jëm ma di ma conseillé naa man boo gëmee li di nga dem parce que toloo ni gars yi mais loo bu li ngay fii moo rëy affaire bi nag dem ba dugg ma nag gën ma neex quoi waaw ñu wàcc sawaat ngor fii nii bëri fi ay laami mbapat yoo xamante ne diñ fi teg fii si bayaal bi ñu toog nii teg nañ fi mbapat tunaa yi fi teg yëpp maa ko jël billaay doon loo xam ne dafa nekk si man dugg wakaam wakaam tey boo fa duggoon boo fa laajtee liiru jaan doo réer sa empreinte dama nga faa marqué stade wakaam bi boo duggee si miir da ngay gis ma defa lu metti billaay laaj ma booy wakaam yi bu baax ñoom ñoo ma xam ñëw ngor nag marqué suma empreinte dégg naa ne booy nag ñuy wax ay mbapat nii di dugal si yoo xamante ne ni mooy loolu ay 2017 lañ bëree yooyu noonu sax ñun bi ñuy bëre boobu ay xale yu tuutee tuuti lañ boobu ñu ngi jàng école dañoo nekk classe laa lay wax nii dañoo nekk classe buñ nekkee école dañuy jël suñu xaalis si ndékki di ko tegoo pour génn bëre école ba loolu rek laa fi nekkee woon ñu dugg si biir 16 ba jël suma xaalis teg ñu teg ndékki luñ teg ma raafal yëpp xool booy ma gën a sës ma jëndal ñu ñëw tegu kon làmb dafa nekk loo xam ne dafa nekk su ñun quoi waaw. parce que non essai moom mooy loolu quoi école yi moom mooy loolu quoi. waaw dem nañ ba cinquième géré nañ foofu waaw xam nga boo duggusee da ngay def ba musée yi sax dañ naa man mbër mbër mbër sax ma rek mooy loolu quoi nga dugg classe sax bu ñu mu jug actionné ñu jaab dugg si tableau bi bi billaay monsieur Sow nañ doon toog mu ma yow doo yàgg si école bi da ngay sonn rek bu dee ay bëri nga bëgg ax yooyu man ngaa dem sa papa dugal la jooy études yi yooyu noonu say nga dem bëri billaay wallaay mais askan lu dara jarul waaw xam rek boo tourné xool meer xool père bi ak situation yi ñu demee nga xaw doon góor tamit chaque jour nga bëgg a xew la jox ndékki añ reer tamit kon xaw doy waar quoi meer bi xam nga di jaay nga di la jox ngay dem di la jox paas xam nga rek am na moo xam ne boo ko tolloo foo nga reculer wu ci loo def quoi après ma reculer maire dugal ma métier xam nga moom moom suma lépp la moom ne ma moom boo bëggee bëri moom da koy boole métier ma man la jàppale ma ne ko waa dal jàmm ma ñëw mu ma si métier bi waa këroleur këroleur bu mag a nii billaay wallaay mu la téewale sa jëre nga kontaan da war a ñëw ah karol leen leen bam bam nice karol dressé leen xam nga rek pare jointe leen dëkk yàlla mu leen yëngalal bërbatim bi sotti leen ko bàyyi leen def maa leen gën a bandi ñoom ñëpp dañuy actionné nii rek yaa ngi ci karo bi karo bi ma xool bi ma bàyyi école la ma maire bi dugal xama rek bu may génn bu may bu may njëkk dem làmba bëri ji mbapat sax ma yolleeku ndànk ñee moom ma sax jàll dama wiiri dem maire bi dañ ko woo ne ko sa dooba ji bëri affaire yooyu après xam nga mu jël ma PV ne ma bàyyi nga école léegi da ngay jàng métier su ko defee ma mën la bàyyi ci li nga nekk ma nekk amul problème waaw ma dem jàngi métier léegi nag mu dugal ma métier sama benn patron ku si mel ni Karim quoi maa ngi koy nuyu tamit waaw asma patron yi ñoom Saliou ñoom papa mbërëm leer gars yi yëpp def nañ si man xam-xam tamit quoi waaw mu ñëwee chantier bi rek ma dalal nekk ak man waa dal jaam waaw ñuy dóor karo nekk si làmb ji nekk si karo waaw loolu la ah, ñu ngi noonu ma si conseil xale yi nga xam si ñu ngi bëgg làmb wala xale yi nga xam si ne bàyyi nañ jàng nañ dem jàng métier moo xam karo la moo xam mécanicien moo xam tôlier ah, moo xam téer lu mën a doon ah seen émission mbër métier incha allah dañ ñëw dal seet si la xool fekk chantier xool ni ngay karo ah affaire yu mel ne incha allah dañ comme ni nga ko defalee say morom tey nañu ñëw seen émission seeti mbër daala ki nga xam si moom mooy liiru jaan ngor léegi jaan ji nee nga day màtte dangar ji léegi yan booy nga bëgg a cof waaw xam nga booy yi da ngay toog fii tudd seen tur après ñu ne fii xam nga rek fenn nag tojogoo amugoo sax licence tojogoo fenn amoo sax licence ama kenn xamuñu mais amaana tey liñ liggéey mba fa tey wane nañu amoo sax licence billaay wala licence bi génn na licence bi maa dem CNG ku si mel ni suma papa Mara Sima Mara Sima moo ma jox ten taw na ma dugal CNG ba déposé licence ñëwaat mu wàcc CNG ba fekk gars yi toog di réunion paaye yëpp laa lay tegal nii mu ne bërët dugg ñu ne ma booy xanaa mbër nga booy mu ànd la ne leen liiru jaan bu ngoro ngi nii xale bi mooy doog a yegg si nii mu ne bërët wàcc sa si biir fekk fa ko si mel ne suñu papa bëgg a fàllu mu signé kontaan ne ma booy mbër nga ma ne ko waaye xale baa nii nii déposé licence bi andi mu dugaat mu dugg fa fekk fa moo mooy renouvelé licence yi màgget ne ma eh booy tey si ngóor nga ñëw jël si sa licence ma ko bàyyi mu jàll xëy suba si ëllëg si dem mu ne ma sa licence ci kaw laa ko teg heure boo ñëw ma ni sa combat laay xaar billaay wallaay licence bi taxawul sax. booy yaa fi de booy bëri nañ de te booy saf sàpp lañ def jaan ji kat la war a cof. te licence bi bu génnee daaw damaa waroon bëre damaa waroon bëre bi licence bi génnee combat ñu ma doon proposé ay combat ay mois de mars foofu ñu ñëw nag corona bi ñëw waa cas communautaire yeex waa cas contact yeex Covid 19 bi doo comprendre ñëw yàq lu bëri ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla teggi quoi mbas mi xam nga rek. mooy loolu quoi. billaay. xale ñoo nekk sa kanam yan xal parce que defaguñ fi dara nag booy yi morom la ñoom it amaguñ combat defaguñ dara bëri na booy bëri na yow xam nga booy yi nga booy yi nga xam seen làmb boole na leen ku si mel ni kat am na booy yoo xam ne fii barki démb jëlee naa ne fii ñuy wax ne ma jox Siteu bu Ngor. waa xam nga loolu tamit dañ ci sawar wax quoi man bu ma doon laaj ban caatu jorof booy jàmm gën boobu noonu say boobu laa gën a fixé caatu jorof moom noonu say di ànd ak mbay xadaar ma fi mbay xadaar boobu man caatu jorof moom noonu say laa gënoon fixé sax bu ko amoon mu xam ne ne du dara. yow doo jaan liiru jaan nga wax liiru jaan da lay jóge rek nga pàcc liiru jaan. mais jaan gi dangar la àndal dangar gi danaa laan cofit cofit muy gaaw. liiru bàyyi Caaru Jolof Caaru Jolof deux combats deux victoires gis nga ko bu baax day xeex day bëri. waaw Caaru Jolof day soob rek booy dañuy metti metti lu metti ñu sax bu ma ko fekkoon jàmm nga mu ko jàppee mu xam ne lépp dëgg la Caaru Jolof moomu. Caaru Jolof nga ne boo ko fekkee jàmm nga. bu moo ko jàppoon mu xam ne lépp dëgg la. xam nga ne sa jaan liiru koy jokk dafa mu dee liiru jaan gi mooy cofit muy gaaw ma du ma sax réguler man xaw ma sax ay làmb mbapat bëri yi mu yàgg ma damay ñëw jàppale taxañ la dem man benn song laa lay daan la dem patron la soxla lii nu mu tudd bu Ngor la soxla nee na bu ñëwee mu defal ko bagage waaw yow caatu jolof caatu jolof ma ko jàppoon nga xam ne jolof amul ndox billaay wallaay caatu jolof moom ma ko woon ba mu xam ne lépp dëgg la xam bu baax waaw xam naa nga nii rek si internet bi dégg ko muy wax ay waxam rek mooy loolu. maanaam champion la ndaanal la ay mbay xadaa lay àndal champion yooyu noonu. waaw su ay xeeru ngor la ñuy àndal. billaay wallaay ay ay ay toujours pere ay fëgale bu ngor ay sita ba ñun man man nekk ragal sama àdduna. billaay. loo ko na boo yooyu yëpp ay fëgale bu ngor ay ay ay ay sita bu ngor ñooñu bu ñu ñëwee benn kay leen di dóor. waay waay fëgale ngay waxal de. bu ngor kooku moo topp si ginnaaw liiru. dañuy jaayante lu metti man ak moom fëgala du moroome ay caatu jolof yi ñu tudd ay affaire yooyu sax caatu jolof man la war a laaleel balaa muy dugg si ay sitax ay fëgalax yooyu billaay dégg naa booyi nag ne si affaire yi di wax nag amaguma combat amaguma dara mais yéen a ngi ma si jàpp dina metti yow trop booy booy nga mujjee interview ñuy wax rek xam nga leen tudd leen waaw xam nga booy ma wax tudd leen xaa booy plateau moomu toog si plateau yi di tudd Siteu bu Ngor plateau moomu plateau yow laay waxal Siteu bu Ngor du sa morom dégg naa la nga bu ñu tëjoon yow bu ñu tëjoon si néeg yow maas yow ba ñu tëjoon sa néeg comme ni ma ko waxee moom saa boo demee da nga dem rapporté ji ñëwaat saa boo ñëwee da ama naa ma liiru wàccil booy bi. plateau plateau laa lay waxal de nee na mooy toog plateau xaw ma ndaamal xaw ma ba gars yi ka gën a doon ay ball fuuf gars yi ka gën a doon ay baay faal fuuf billaay plateau moom noonu say ba bu ma ko jàppoon mu xam ne plateau bi tur rek la si am mais du si dara. billaay yéen booy yéen booy yëpp ay Siteu bu ngor ak ah lim na booy yëpp nee na yéen kenn du si toog plateau plateau moom pour moom la. plateau moom Siteu du moromam kooku Siteu du tontunteef moom Siteu buy tontu day tontunte ay grammes Siteu bëri na deux combats deux victoires moom bëreegul puusul paasul plateau waruñu imposer ñun luñ xamul plateau bu lekkoon sama avance masse plateau yow laay wax gis nga boo lekkoon sama avance yow. ba ba plateau laa lay fekk naa la dóor ba lay dugal si biir ndox mi. yow ñeme ngaa lekk avance plateau yi. ba bu sigee xool ka nga xam ne booy boobu ñemewul sax dëggal gaay gaay ngi yëngal lu mel xoolal la gaay yëngal affaire bi du gaay yi affaire yow la ak man du man de wuyu ma man du ma plateau de yow la ak plateau xoola plateau bu baax yow ñeme ngaa lekk avance plateau. gaay si boppam ñoom ñoo yaakam di journée libre pour ñu wàcce billaay wallaay gaay ñoo yaakam di loolu dinaa ko dóor ba ba. man bul jàkkaarloo man plateau ngay jàkkaarloo wax ak moom man bul jàkkaarloo man plateau ngay wax ak plateau. dañuy toog booy dañuy toog si télé yi xam nga rek ñu ngi di leen jaay ñu jéem a jaay di feemu di xam rek mooy loolu. plateau champion la. koo xam si non. koo xam ne 2017 la dugg si làmb ñun bi ñu nekk xale ba tey ñun ñu ngi ma ñu ngi bëre mu dugg 2017 si làmb di imposer di wax ay wax yoo xam te ne yow da nga ree ba tas 2017 bi ñu nekkee xale ba tey jàng école di génn classe di daw di dëb bëri ñu ñëw profil ñu daax ñuy dugaat mais plateau mu bëri 2017 toog si fii ni sax naan ay man damaa ba gars la gën a waane fuuf. bàyyi plateau xool ko gën a nooy liiru. man lu yomb lu yomb laa bëggul man man damaa bëgg mu metti parce que gars daa am fu ñu may xaaree man damay ñëw teg lu metti ma toog ak garab fëgg la xam nga la moom day làkkee anglais lébu mu ne ma liiru ma ne ko waa mu ne ma liir ma ne ko ma liir ñaari yoon laa la woo ma ne ko yow woo nga ma trois fois mu ne ma doucement doucement ma ne ko ah mu ne ma waan ndànk-ndànk ma jàpp golo si ñaay booy yëpp bu leen yàkkamti fa leen tëyee la nga leen di won yoon yaa man mën yaa leen dàq bëri billaahi te dañu nekk géej manax moom ñu takk gants yi ba dañuy dóorante ba kanami neewi lii ñu dem dugg si géej gi sël mu ñëwaat kon man booy ma toogee plateau yu dugg 2017 si làmb ñëw fi bëgg a actionné man bo ma leen saane erreur eh, dafa may jàpp sax billaahi. man su ma la déggee yow nga ne yow sa diggante plateau bu taxawoon doo sax liwaatoo da ngay xeex ak moom waaw dama ngay duma jóge fi man booy du ma taxawaa ñoom di négocier ak ñoom man booyee ma la tuddal ñooñu la ay caati jolofaa ñooy noonu say ñooñu laay bëril mu metti may plateau boo loolu plateau rek nekk fi yeneen xale yaa fi waaw yeneen xale yi tuddal yeneen yi des xale yi xam nga leen tudd man dama ne yow yaa xam xale yi nga bëgg bëri seen site internet bi dégg nga gars yi di wax xam nga booy ku mel ni ku si mel ni kat des tuddal booy dégg dama bëgg nga tuddal ma booy jàmm gën ñu dégg jaama gën moom jaama gën moom fi ne nii tudd nga tudd nga caatu jolof benn booy fa nekk koo xam moom da maanaam ñëpp xam ne champion la ndaanaan la am na ñoo xam ne nee nañ nee moom kooku moom xale yi bàyyi ngeen bàyyi ko fi ndax bokk ci loo bi nga xam si ah, mooy loolu dafa war a doon roi des arènes xaw ma muy muy Laurent Lors wax la lu garaaw démb ñu ñaar dañoo déggante téléphone bi ma wooy noonu da ngaa coupé deux minutes Laurent woo ma ah. billaa